man la Mariama Diack ñu ngi ma gën a xamee ci Dianké Diack mhm. ñu dëkk Daaru Nayim Njaareem Limaamulaay ñu Kawral Guédiawaye nag laa doon présenté wu association ba nga xam ne euh, dañoo mbool la mbooloo ba nga xam ne dañoo jàppalante doolante suñu biir dimbalante moo suñu fee Kawral Guédiawaye Kawral Guédiawaye en même temps ñun dañoo boole nekk benn du liggéey ci suñu biir kenn xeebantewul ñëpp booloo jàppalewaat président Macky Sall pour réélire ko premier mandat au deuxième tour incha allah. Kaolack Guédiawaye nekk na ñun ñi nga xam ne dañoo associé ñi nga xam ne néew di doole yéen ci biir ak ñeneen ak ñeneen dañ leen di jàppale ñu amul doole ñu jàppale leen ñu jëm ca kanam. ban façon jàppale leen di defal. jàppale te ñi amul doole yi dañ leen di jàppale ñu liggéey ci suñu biir en même temps képp ku sa loxo jotu woon sa ginnaaw. pour mu jëm ca kanam loolu lañ ci soxla woon financement ngi ci lépp ngi ci biir lépp luy dooleel doomu aadama lépp luy yokk doomu aadama vision boobu lañ yor mooy Kawral Géejawaay. est-ce que yokk boobu dina ci langue bi ci wàllu alphabétisation ak it renforcer ndaw ñi ñu gën di wax langue bi di gën di jàpp ci culture bu bi. dina jàpp ci culture alpulaar bi ba fii ba Fuuta ay doomu Fuutankee

président Macky Sall euh, ba Sénégal de Sénégal ba tay premier mandat mu liggéey li mu liggéey ñun gisuñu ko ci Sénégal non seulement féké wuñu euh, le président Senghor mais dégg nañ li def Abdou Diouf même chose même Wade euh, Ablaye Wade ñew mais président Macky Sall da ñew prouver won ñu ñu gis motax ñu bëgg ko jappalé ñu réélire ko inshallah loolu lañ bëgg. kon da ngeen jàpp ni Sénégalais dañu war a jox président incha allah sénégalais dañ koo war a jox deuxième mandat au premier tour. mu toogaat kii campagne bi activité yu bari incha allah. dinañ def semaine culturelle dinañ ko def fii si njaareem limaamu laay am na jeunesse bi am na beneen kii association ba nga xam ni euh, dañuy dimbalante ci suñu biir culture bi lépp a ngi ci biir ci kawral bi incha allah ci élection yi ci campagne bi incha d' accord beneen bi mooy campagne bi dafay dañ ci faral di ay violence ak coow si même léegi nii sax fan yëpp moom la ñuy lancé violence bi dañ ko éviter jeunesse bi ci biir ñoom ñooy sensibiliser nit ñi di dugg ci biir kër yi di leen wax di yeetaat ndax sa kër ngay njëkkee ba pare balaa muy dem ci biti. mais ñun ñëpp sensibiliser sensibiliser nañ nit ñi waxtaan ak mag ñi waxtaan ak xale yi waxtaan ak paa yi waxtaan ak ndaw ñi.